fii Touba kanam ñuy teg nuyoo bi ci loxob El Hadj Serigne Tako Mbacke nuyu Serigne Abibullahi Mbacke moom Serigne Fallou mi nga xam ne mooy jëwriñ ji toftal ci Serigne Abdoulahad Mbacke moom Serigne Abibu mi toftalu ci moom ci jëwriñ gi ak soxna Bintu Mbackeem Serigne Abibu mi nga xam ne moo jiite mboolem soxnay Touba ca kanam. Euh, nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu bu baax a baax foo membre bu Touba ca kanam nekk euh, jaajëfal ko sant ko tey nag ñu fas yéenee dikk yéen ci bilan moral euh, nga xam ne at mu jot. dañ ko war a indi gaaral ko ci kanam mbooloo ni te muy liggéey yi nga xam ne Touba ca kanam jot na ko def ci at mi ñu génn Touba ca kanam ñi ngi ko sos ci atum 2016 waaye ay liggéeyam dëgg-dëgg ci ndajale weer wu nekk ñaar téeméer mi ngi tàmbali ci atum 2017 ca weer wa ci njëkk di weeru janvier ci lañ ko tàmbali euh, ñu def 2017 2018 2019 ba 2020 bi nga xam ne mooy doog a jeex nii nga xam ne moom lañ leen di li nga xam ne liggéey nañ ko ci ci tënk Euh, ci atum 2020 moomu nag ci la ñu fas yéenee ñëw indi li nga xam ne mébatoon nañ ko bi at mi tàmbali li nga xam ne jot nañ ko cee def ak yi nga xam ne daf ñoo dab ci biir at mi te mébatuñ ko woon yooyu moom lañ bëgg a indi ci tënk gaaral ko mbooloo mi leeral yi dëgg-dëgg nag ak détails yi nga xam ne moo ci aju ku ko soxlawaat da ngay delluwaat ci commission yi Touba ca kanam yi commission bu ca nekk lam liggéey mooy indi dëgg-dëgg détails waaye dañ koy jéem tënk. ni ko baaxoo defee nag ci at mu jot bu ñuy dugg ci at mi dinañ waajal dinañ tobbi aw sas def lu ñuy wax programme annuel tëral ko ngir fas yéene koo doxee diirub at mi yi nga xam ne moom la ñu naal ak moom lañuy ñu mébét. waaye yàlla dogal at mi ñu génn di at mu am ak wuute ci àdduna bépp waaye am ak wuute tamit ci Touba ca kanam wuute gi nga xam ne moo ci am ci àdduna bépp mooy mbas mi fi nekk ñu koy wax coronavirus te ñuy ñaan yàlla mu jëlee ko fi te yamale ko fi te musiba yi nga xam ne indaale na ko yépp suñu borom musal ñu ci. Euh, li nga xam ne tamit nag moom la Touba ca kanam moom jagoo ci at mii mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci te ñu man cee tudd lu mel ne liggéey bi ñu doon def jëm ci defar yooni dëkk bi te ab jaayante amoon ci ñaar yooyu mooy yi gën a fës ci liggéeyu Touba ca kanam kon at la moo xam ne at mu am wuute la euh, waaye at la moo xam ne tamit feeñal na kéemtaan ci liggéeyu Touba ca kanam ndax at moo xam ne. am nañ diir bu yàgg boo xam ne tëj nañ ko àdduna bépp ba dem ak dikk jàppandiwut bu dee ci biir réew mi am na diir bu yàgg boo xam ne tëj nañ ko ba dem ak dikk jàppandiwut daanaka ndaje mënta am liggéey yu baree bari amatut yu baree bari wàññiku na ba indi ak sooxe ci bërëbu liggéeyukaay yu baree bari teewut ànd ak loolu yëpp mooy at mi nga xam ne moom la Touba Ca Kanam ëpp lu mu liggéey moom la Touba Ca Kanam ëpp lu mu dajale ci ay koppar ndax xam ngeen ñetti at yi ñu génn 2017 gi nga xam ne ci la Touba Ca juddu mooy atam mu njëkk ak mille 2018 ak deux 2019 li Touba ca kanam dajale ci ñetti at yooyu ci ay koppar li mu dajale ci benn atu 2020 moo ko ëpp fuuf daanaka xaw na koo ñaarte ndax ñetti at yooyu 1 milliard 891 millions lañ ci dajale atum 2020 Touba ca kanam dajale ci deux 3 milliards cent millions 619 mille kon loolu kéemtaan la te mi ngi amee ci xat-xat yi nga xam ne àdduna bi dafa dafa dafa dafa tëju te ku nekk xam na ne liggéey bi mel ne liggéeyu Touba ca kanam dafa laaj ak ubbeeku dafa laaj dem ak dikk dafa laaj communication dafa laaj massification ànd ak loolu yëpp kon lañ doon wax ci biir liggéey bi di wax ne corona du dox suñu liggéeyan te liggéeyal sëriñ bi loolu yàlla defal nañu ci tawféex ñoo ngi ko ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ci sant sëriñ bi. ba tey danañ seetlu ne Touba kanam am nag yokkute bu baax a baax ci at mii di atum 2020 ndax ni ñu ko xamee Touba ca kanam bi ñuy tàmbali dañoo amoon. mébétum at mu jot ñu dajale ñaar fukki milliards ak ñeent liggéey bu yàgg lay doon liggéey bu metti lay doon waaye ku bëgg a dem da am yitte ju kawe yitte ju kawe nag mooy euh, topp topp bi sos sasu rëy fas yéene koo jeexal heure boo ca nekkee di ca dox nag euh, dox ba lu mu tuuti tuuti ak lu mu néew néew boo gestoo sa ginnaaw danga rawee lu baree bari ña nga xam ne yaa ngi leen bàyyi woon ñu toog te doxuñu atum 2017 Touba ca kanam objectif am boobu mu am mooy foofu mu dox jëm jëm ci 24 milliards euh, lim ci dajale woon lépp 1,4 pour cent lay tolloo téeméer bu nekk benn ak genn wala daanaka la ca amoon. atum 2018 2,45 pour cent la ca am atum 2019 4 pour cent la ca am bu ñëwee ci atum 2020 bu dee ci njaayum rosi mi rek am nañ ci 6,5 pour cent waaye bu dee ci boo boolee jaay rosi yeeg jaayante yeeg yëpp am nañ ci luy tolloog 13,34 pour cent téeméer bu nekk. ci vingt 24 milliards yooyu téeméer bu nekk jot nañ caa dajale fukk ak ñett euh, yu teg yu teg tuuti kon loolu ak ak ak cant la gu rëy rëy goo xam ne ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax moom li nga xam ne moo ñu defal tawféex yooyu mu jaarale ci sëriñ bi. Euh, ginnaaw loolu nag li nga xam ne mébétoon nañ ko naaloon ko fas yéene koo liggéeyee ci at mi euh, dañ koy wax programme annuel bi ñu ko xaymaa tolloon na ci daanaka ci milliard ak genn wàll ndax 1 milliard 464 millions la woon. loolu boo koy xool eh, junni million day doon daanaka ak juróomi téeméer yu manqué tuuti loolu nag liñ ci njëkkoon a xalaat rek mooy bërëbu fajukaay bu mel ne bi nekk Kër Gol ak Boberel bu ci nekk nañ ko àggale ba mu sotti colet donte àggoon na waaye desoon na ay sew sew ay sew sewaan yu mel ne eh, équipement jumtuwaay yi nga xam ne war nañ ko fajoog yooyu loolu moom lañ ca naaloon lépp def nañ ko cent pour cent eh, ci biir at mi naal nañ fi maanaam tàmbali nañ fi ñaari bërëbu fajukaay benn bi mi ngi Touba Njaareem benn bi mi ngi Ndaam Daaru Alimul Xabiir ñaar yooyu bu ci nekk tàmbali nañ ko doxal nañ ko ba téeméer bu nekk am nañ ci juróom fukk kon war mëneef naa wax ne bu ci nekk toll na ci xaaj. Euh, ba tey bërëbu fajukaay bu Daaru Xadim lañ ca mébatoon ci at mi bu doon téeméere def nañ juróom-ñeent fukk ba wala juróom-ñeent fukk ba ak juróom-ñeent. amoon nañ yéene. ak mébétu ci at mi ñu taxawal lu ñuy wax ab centre dialyse ndax ku nekk xam nañ ne ñi amee wopp jooju woppi eh, roñon eh, bari na ci dëkk bi te mat nañoo taxaw waaye mébét moom yàlla dogal na mujjul sotti bokk na ci li ko li ko tee sotti tamit ni at mi bindoo amoon nañ yéene ci eh, toilettes yi nga xam ne defoon nañ ko ci morgue bi ci armée lu njëkk yi ñu mot li ko defalu mel ni pavage ak yooyu loolu moom lañ ci yéene woon lépp yàlla dogal na defee nañ ko nañ ko bëggee woon Euh, batiment bi nga xam ne Touba ca kanam ma ngi koy tabax ca université ba euh, di ñaan yàlla mu àgg ci jàmm euh, ba mun taxaa ubbi ko ci jàmm ba lam ci yéene lépp mu am ko ca at mi liñ ca mébétoon a def loola def nañ ca luy toll fukk fukk juróom-benn fukk ak juróom ci lañ ca mébétoon a def ndax ñaar téeméeri million lañ ci doon waajal donte nemmiku nañ yeexaayu liggéey ba waaye yooyu jooyante nañ ko ba jàpp nañ ne ci 2021 bi liggéey bi dana mën a tegwaat ci yoon ba ba mën a àgg incha allah lu jëm Euh, li ñuy wax opération leeral te mooy làmp yi nga xam ne ñoo ngi koy taal ci dëkk bi loolu liñ ci mébétoon def nañ ko ndax lu tollook ñetti junni lamp lañ ci mébétoon ci at mi yàlla dogal na jënd nañ ñetti junni yi agsi na ba monte nañ ko ba tey jii may waxeeg ak yéen ci vidéo bi incha allahu bi ci lay noppi tey wala boog la cay dese ko si néew kon suba lañ koy àggale kon euh, loolu moom lañ ci mébétoon lépp euh, def nañ ko moom tamit waaye waxoon nañ ci at mi tamit ne dinañ jënd benn oto nafel camion nafel mooy oto boobu nga xam ne day ànd ak lu nit mën a yéeg mu yëkkati ko ba mu tolloog lampe bi mu man koy monté ka démonté loolu tamit lañ ca mébétoon def nañ ko ndax jënd nañ oto bi euh, ñëw na ba ñu ngi ciy liggéey bokk na ci mbébin mi nga xam ne amoon nañ ko tamit ci at mi mooy jënd benn pelle chargeuse mooy euh, machine yu mag yooyu nga xam ne day am tibbukaay mën a tibb suuf ak ngeen koy gis ci kaw tali yi ñu koy wax pelle chargeuse dogal na bi at mi tàmbali benn lañ ci amoon mébét mujj nañ ko jënd dinaa ñëw ci yi nga xam ne sax mujj na ca dollikuwaat yëpp te bokkutoon ci eh, li ñu naal ci at mi bokk ci kéemtaan yi nga xam ne Touba ca kanam dund na ko ci atum 2020 ba tey bokkoon na ci at mii naal yi nga xam ne Touba ca kanam amoon na ko te mujj ko def mooy jënd lu ñuy wax ay corbillard corbillard mooy oto yooyu nga xam ne ñi yàlla dogal ñu wàccub liggéey ci lañ leen di dugal ngir man di leen yóbbu ca eh, seen seen kër gu mujj ndax gis nañ ne loolu jafe-jafe la ci dëkk bi ba léeg-léeg sax ku ku nekk ku wàccub liggéey dañ koy dugal ci oto bu ne rek donte oto booba sax loola taxu koo jóg ngir ne xay na dafee amut loolu nag taxoon nañu waajaloon ci ñaar waaye moom it yàlla dogal na bokkut ci yi nga xam ne euh, sottal nañ ko ci at mi euh, niñ ko xamee ci jamonoy nawet bu nekk buy tàmbali wala ci digg nawet bi wala bu nawet bi jeex Touba ca kanam baaxoo naa puudar dëkk bi ngir lu mel ne yow ak benn bépp xeetu doomu jàngoro bu mën a joxe wopp ñu mën koo ñu mën koo kii liñ ci mébétoon ren jii bu dee téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaar rek lañ ci def ndax benn yoon rek lañ ko lañ ko mujj def lu jëm ci wàllu environnement te mooy euh, tonni mbalit ak defarum yoon ak jëmbatum garab amoon nañ ci ay mébét yu rëy camion ay oto yu euh, euh, yuy tonni mbalit yi nga xam ne day lonku kees ak ay pôles mbalit yooyu yëpp naroon nañ koo jënde ren. waaye boobu programme nga xam ne waajaloon nañ ko ba waroon cee def lu tolloog ñetti téeméeri millions ak juróom-benn fukk programme boobu dañ ko mujj lépp soppi ko nag dugal ko ci assainissement te mooy defarum yoon yi ci biir defarum yoon yooyu nag mujj nañ cee def lu tolloog euh, euh, junniy millions ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaar yu toftal euh, muy 1 milliard 732 millions lañ ci mujjee def. te mébét mi moo doonoon ñu def ci 360 millions loolu tamit bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne feeñ na ci feeñ na ci at mi liñ ci mujj liggéey lépp nag nga xam ne mujj nañ cee defar assainissement defar ci ay tali euh, sëkk ci ay mbedd ba màggal wu ren ñi màggal si woon ñëpp gis nañ ne bu nag liggéey boobu dem beeg dikk bi dana jafe lool ci euh, mbeddi dëkk bi waaye yàlla defal ñu ci tawfiq ba nga xam ne liñ ci yéene woon am nañ ci lu kawe njortu fuuf ndax euh, le 8 août la ñu lancé bi ñuy woowee opération defar yoon yi yàlla defal ñu tawfiq laataa ñuy màggal li ëpp ci liggéey bi sotti na ba li ëpp ci mbedd dëkk yi mbedd dëkk bi mbedd yi nga xam ne mbedd yu mag la woon amoon ay jafe-jafe ci dem ak dikk yàlla dogal na mbedd yi ubbeeku ba dem ak dikk mën caa jàppandi euh, lu jëm ci wàllu euh, ndoxum naan ku nekk xam na ne bi ñuy tàmbali ci at mi waxoon nañ ne natt nañ ci téeméeri millions yu ñu ci war a def ci jàppale waa Maaw Rahmati euh, ci pompe forage yi nga xam ne day faral di paan waaye tamit ci lu ñuy wax adduction d'eau fexe ba quartier yi nga xam ne quartier yi xaw sori la ndox amu fa ñu fexe faa yóbbu ndox liggéey boobu def nañ ci luy toll fukki quartier ak ñett ren yoo xam ne Touba ca kanam euh, fexe na ba jënd ay tiwo fexe ba ndox àgg ci quartier yooyu ci jàppaleeg maaw rahmati waaye ay pompe forage tamit jënd nañ ci lim bu bari ndax bu ngeen fàttalikoo ci jamonoy couvre-feu bi ñu nekkee ci état d'urgence nga xam ne dëkk bi dañ koo tëj bu guddi jotee kenn du génn booba ndox tolloon na ci dëkk bi jamono yoo xam ne ndox daa manqué woon lool te guddi la yenn robinet yi daan xel yi te génn guddi di rooti mënutoon a nekk ndax dañ ko daan aaye waaye tayit booba euh, bi pompe yi paane doon nañu wax ne pompe yombut fi mu ne ndax dem ak dikk ba ci Europe sax dem fa wuti fa matériel wala yenn jumtuwaay dafa xaw na jafe ànd ak loolu yëpp Touba ca kanam amoon na tawféex yi indi fi ay pompe euh, ba changé woon pompe yi paanoon ci forage yëpp ba ndox mujjoon amat. ba tey lu jëm ci wàllu njàng mi ak it lu ñuy wax formation te mooy dolli xam dolli xam-xam ñi nga xam ne ñoo yëngu ci xam-xam amoon nañ ci ay naal. lu jëm ci wàllu njàng mi amoon nañ ci mébétu def ci téeméeri million ci at mi lu jëm ci wàllu formation amoon nañ yéene def ci ñaar fukki million muy cent vingt million loolu nag lañ ca def day tolloog rek juróom fukk ak juróom benn genn wala cinquante six virgule pour cent rek lañ ci def ndax ni nga ko bëggee woon dëgg-dëgg mujjul demee noonu waaye teewul nag am nañ ci lu kawe njort ndax lu tolloog juróom fukki daara ak juróom ñett jàppale nañ ca ñoom ci lu mel ne ay mbaara kii wan ak yeneen yee ci aju luy tolloog téeméeri sëñ daara ak ñeent fukk dolli nañ leen xam-xam ci seen liggéey ci loo xam ne waa commission euh, scientifique et culturelle lajnatul ilmiya wa thaqafiya ñoo ko doon taxawee muy liggéey bu am am solo boo xam ne jàpp nañ ne ci at at mii ñuy dugg nii danañ ko yokk euh, gën koo kii ndax gis nañ njariñ li ndax dolli dollente ay xam-xam mooy tax ñuy gën a mën a jëm ca kanam euh, ci wàllu communication amoon nañ ci naal yu rëy rëy amoon nañ yéenay taxawal rajo ndax rajo bi joxoon nañu fréquence bi boobu amoon nañ yéenay tàmbali ko waaye dañoo mujjee rek jot ndigal ci suñuy kilifa ci seen ab yi Abibu ci ne nañ bàyyi ba e, Touba ca kanam makkaanam mi nga xam ne fàggu na ko ren bokk ci yi nga xam ne dugg na ci liggéey bi ren bi ndax fàggu na makkaan fii ci e, yoonu Mbàkke ci fii tolloog arrondissement bu Ndaam makkaan moom bis bu ñu ko tabaxee ba mel nañ ca bëgg bu boobaa dinañ ca mën a def rajo boobu noonu e, li ci def nag mooy yu jëm ci massification ak li nga xam ne moom la ñu waajaloon ci fonctionnement yooyu yëpp lu ci nekk def nañ ci ba def ci lu lu lu kawe njort yii nag bi ñu ko boolee mooy tolloog euh, un milliard quatre cent soixante quatre millions yi nga xam ne moom la ñu mébétoon bi at mi tàmbali fas yéene koo liggéeyee ci dëkk bi yàlla nag defal ñu tawfiq ñu euh, loolu mujj yokk ba àgg ci trois milliards deux cent deux millions mooy loolu ma doon leeral léegi kon muy at moo xam ne. Euh, at mu métti la dëgg la ci àdduna bi ci wàllu économie ak tëjoog yooyu waaye at mu neex la ci Touba ca kanam ci mébétam ak i liggéeyam. ni ñu leen ko waxee woon léegi ci euh, matériel euh, roulant yi nga xam ne maanaam jumtuwaay yi ñuy war a liggéey yi nga xam ne mébétoon nañ ko jënd ci at mi tam tam doonoon rek ab camion nafel ak benn pelle chargeuse. waaye nag yàlla dogal na ni ñu ko doon waxee léegi ci kéemtaani at mi laata at mi jeex am nañ ñaari pelle chargeuse am nañ ab compacteur. am nañ tractopelle am nañ niveleuse am nañ ñaari camion citerne ak yeneen jumtuwaay lu mel ni ay pompe ak yeneen ak yeneen loolu ku delluwaat ci rapportu commission logistique di nga fekk détail yëpp ñu ñu dugal ko ñu ñu détaillé ñu détaillé ko foofu ngir wax rek ne lu baree bari ci li ñu mébétoon ci at mi dafa mujjee dafa mujjee soppiku dox doxin woo xam ne daf ñuy mujjee daf ñoo mujjee yem. bokk na ci at mi liñ ci jàngate mooy dimbalante. solo su dimbalante am at mi da koo feeñal dimbalante eh, jàppoo doon benn ci jamonoy xat-xat ndax njaare ñaare jafe-jafe bu amee rek am na njàngale muñ ci mën a jëlee waaye am na yombal yombal bu ci mën a jóge eh, at mi ci wàllu dimbalante ci bi eh, mbas mi doog a agsi li ci Touba ca kanam def ci alal ak li nga xam ne Touba ca kanam dimbalee na ko commission sociale ak li nga xam ne Touba ca kanam Euh, def na ko ci ñi nga xam ne ñoom lañu ñu noon ci jamonoy quarante jamono yi nga xam ne wopp jàngi doog a dugg kër yi wopp doon dugg ñu leen doon tëj euh, Touba Ca Kanam defoon na ci lu toll lu ëpp cent vingt millions euh, commission sociale rek li nga xam ne jàppale nañ ko ren ci aw nit ëpp na ñeenti junniy nit ñii ci seen wàllu wér-gu-yaram ñii ci wàllu dund ñii ci seen wàllu dëkkuwaay ak ci yeneen ak yeneen kon Euh, naka jekk commission sociale mi ngi def liggéey bu am am solo waaye at mii nga xam ne dañoo soxla woon social ngir ni jamono deme woon ndax mbas mi taxoon nañu yokk ko ba Touba ca kanam jëloon ci kesam def ca waaye ñoom it ñu def ci liggéey bu ama ama am solo boo xam ne euh, ñëpp teg nañ ci seen bët te ku ci soxla ay leeral yu gën a yaatu boo delluwaatee ci rapport bi nga xam ne waa commission sociale def nañ ko dinga nga fekk ñu détaillé lépp ba mu gën a leer ndax ñun dañ koo boole nii rek def synthèse bi ngir ñiy seetaan mën a xam li nga xam ne Touba ca kanam liggéey na ko ci at mi Euh, Touba ca kanam nag ku nekk xam na ne defar na ay jéego yu bees ci at mi def na ay jéego jëm ci wàllu gën a yaatu ci biir réew mi ak bitim réew def na ay jéego jëm ci gën a dox ci li ko taxaw na jóg euh, te mooy li ñuy wax développement communautaire maanaam lëkk àndandoo boole doole yi ngir suqali sunu gox euh, li tax loolu mooy Touba kanam misaal la exemple la ci àdduna bépp ci boole ay doole ngir suqali gox ba nga xam ne fa la ñuy féete Euh, loolu nag li nga xam ne moo ko may Touba ca kanam Pastef la akuk dogu ak taktoo ànd ak ay kilifa yu ko mat topp ci seen ginnaaw ànd ak ñoom di sottante xalaat di waxtaane lépp di di di di yëkkateendoo di tegandoo loolu euh, jural nañu nag liggéey bu bare bari ndax at mi euh, li muy xat-xat li muy doon doon at moo xam ne atum mbas la teewut def nañ ci ay réunion yu baree baree bari def nañ ci ay ay ay programme lu ñu wax programme Café Touba ca kanam rek bi ma ci doon joxe misaal liñ ci def ci at mi mat na téeméer yeneen réunion yi nga xam ne moom lañu doon fiq ak euh, autorité locale yi moo xam commune bi la nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy jonjool ndax li ñuy bokk di liggéey dañ ko war a yëgoo ndax dëkk bi ci euh, kilifteefuk lu jëm ci wàllu liggéeyu dëkk bi ci kilifteefuk sëñ Siidi sëñ Abdou laat ci la ko sëriñ Muntaxa teg euh, sëñ Siidi jëlaat dëkk bi jox ko sëñ Abdou Lahad Ka kon lu waaye di def ci dëkk bi ci loo xam ne compétence commune la faaw ngay waxtaan ak commune bi ngeen di yéegoo kon loolu moo tax diirub at mi ak at yee koy jiit nangam yoon dem nañ ko ci commune ba te fekk njiit li sëñ Abdou Lahad Ka ak ay collaborateur am ñu bokk di waxtaan di nos di déggoo ci li nga xam ne war nañ ko def ci dëkk bi naka noonu tamit fu mel ne préfecture ak sous préfecture am nañ fa réunion yu bare bari sapeur pompier service genne Sénélec mbooleem euh, service yi nga xam ne ñoo ngi ci gox bi ak euh, ñi nga xam ne ñoo fi teewal nguur gi lu ñuy def lu nekk dañu ci déggook ñoom opération defar yoon yi bi ñu ci accès ñun ak waa Ageroute toog nañ ci nangam yoon ci ndimalul Cheikh Mouhamadul Basir euh, moom Serigne Abdou Khadr mi nga xam ne moom mooy euh, moo yor kàddu euh, Serigne Mountakha di koo xam ne ku jàppale la Touba ci kanam ci wet yëpp ci wet yëpp kon liggéey bu yaatu yaatu def nañ ko fi bu dee lu jëm ci yeneen daayira yi nag daayira yi nga xam ne ñoo ngi ci ñoo ngi ci dëkk bi ak kuréel yi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey Serigne bi kuréel yëpp ak daayira yëpp Touba kanam ànd nañ ñoom. kenn ku ci nekk ci ñoom wet ga nga féete bu ñu amee luñ cay liggéey yow lañ cay àndal ba nga xam ne collaboration bu rafet rafet lañ am ci wet googu. bokk na ci nag li nga xam ne mat naa bàyyi xel ci at yi di ñëw ci Touba ca kanam dañu war koo tàmbale ci at mii ci ñi nga xam ne ñoo fi war a ñëwaat yor liggéey bi di ko wéyal ñu war cee bàyyi xel mooy euh, liggéey la boo xam ne liggéey bu diis la te ni muy màggee gaaw na te it euh, ni ko Serigne Mountakha waxee woon yàlla fi yàgg loolu ca tàmbali ba. yitte rek la laaj akuk jot te loxo yi koy taaw buñ ko bëggee boole léeg-léeg ak seeni liggéeyu bopp dina waral yenn sooxe yi ci biir loolu nag gis naa ne kon jël ay nit di leen fay ñuy taxawu yenn yi nga xam ne ñiy jaayante mënuñoo dagg seen jot gépp di ko jox liggéey bi ñoom ñu wuti leen ca lu liggéey bi yittewoo la te toll nañ ci waxtu woo xam ne jàpp naa ne bokk na ci li mën a tax liggéey bi wéy te du am genn sooxe. ndax lu ko mooy nit ki nga xam ne dafa war di fàgg lu mu yóbbu këram bu ko bëggee booleeg waxtoom yépp mu koy jeexal ci jaayante ci liggéeyu Touba ca kanam euh, bu yàggee mën na mën naa doon mën naa indi ak sooxe waaye bokk na ci li nga xam ne Touba ca kanam mi ngi koy mébét ci at mi tamit mooy fexe am makkaan makkaan moo xam ne euh, bâtiment bu baax lay doon bâtiment bu jamono wala bu jiitu jamono lay doon boo xam ne lépp lu war a am ci euh, nekkin wu méngoo ak jamono danañ ko ci def waaye nekkin wuy tax li ñu am yéene te mooy liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi tamit dana ko man bokk na ci nga xam ne tamit war nañ koo bàyyi xel ci at yii di ñëw rawatina ci at mii ci ñi nga xam ne ñooy ñoo ñooy taxawu liggéey bi ñu bàyyi ko xel mooy dëkk ngi nii boo xam ne bari na ay ndaw lool ndax xam ngeen ne at mi bokk na ci li marqué li marqué at mi mooy dugg ci gaal yi di dem bitim réew ngir wuti liggéey te Touba kanam naka jekk daa mas a bokk ci ay xalaatam mooy fexe ba taxawal fi ay bërëbu liggéeyukaay loolu nañ ci gën a taxaw bërëbu liggéeyukaay yooyu nag liñ ci waxtaanee ak liñ ci xalaat barina waaye ci biir at mi amal nañ fi ay atelier yoo xam ne waxtaan nañ ci wet yi nga xam ne yëpp jàpp nañ ne ci kanam Touba ci Kanam war na caa mën liggéey lu ci nekk ñi waxtaan ci euh, tënk ci euh, ci ci anam yu bare bare bari yoo xam ne ku delluwaat ci rapportu commission étude et contrôle ku delluwaat ci seeni rapport di nga gis détails yi nga xam ne euh, jot nañ ko caa def beneen bi ci topp tamit nag mooy ak déggoo képp koo xam ne yaa ngi ci Touba ca kanam am ci carte membre bokk ci liggéey bi li war njëkk a nekk sa yitte mooy nu mbooloo mi def ba déggoo nu mbooloo mi def ba dëppoo ndax euh, lu mën a xew ndam li nga xam ne ñoo ngi koy séentu ci liggéey bi mënuñ koo am lu dul ne dañoo déggoo lu dul ne dañoo dëppoo ndax euh, sëriñ bi dañuy fekk muy wax ne ñi nga xam ne euh, ñoo ñoo fi nekkoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam li leen may ñu wuñ ñi woon lëndëm yi gox gox ya mooy xam-xam ak jëfe xam-xam akuk dëppoo mooy fi muy wax naan wa kashafu du junnatal afaaqi bil ilmi wal amali wal wifaaqi kon ginnaaw xam ak jëfe xam lay tax nit mën am ndam mooy ak dëppoo ku nekk xam na ne bokk na ci jafe at mi mu bari jafe-jafe di yàlla mu teggi jafe-jafe mooy bërëb bi nekk ci dëkk bi te doon bërëb bi nga xam ne li ëpp ci koomum dëkk mi fa lay daje di marché occas lakk bu metti amal na fa ci at mi bi mu jàllee nag Touba Kanam ci xalaat gi muy xalaat solution ci lu ne ci dëkk bi rek indi wan na ab xalaat wan wan nit ñëpp ab maquette wala modèle ay proposition ay mébét ci naka la ñu bëggee marché bi naka lañ ko mën a lijjante ba la fa amoon duutu fa amati xalaat boobu war naa bokk ci xalaat yi ci xalaat yi nga xam ne ci at mi Touba Ca Kanam dana ci gën a teg loxoom gën cee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ci war a waxtaan ba loolu mën a jàll bañ lijjanti mbirum marché bi ndax ba léegi ku delluwaat ci marché Ocass bi di nga xam ne lawoon dañuy ñaan yàlla mu musal ñu ci waaye nag nit ñi moom soppikuwuñu soppikuwuñu soppiku ku tax lawoon ñu mën caa mucc lu tee nag dañuy wéy di ñaan yàlla mu musal ñu ci. waaye di di ci doole nag ci at mi tamit at la moo xam ne wane na ne doole yi buñ ko boolee lu ñu bëgg mën nañ koo def ndax seetlu nañ ci at mii ne. mboolem kuréel yi nekk ci dëkk bi di ci yëngu ànd nañu ak Touba ca kanam ci liggéeyam bu mag boobu ma doon tuddee defar yoon yi mën nañ cee jiiteel rek euh, Baye Fall yi ak Cheikh Sëriñ bi jàpp nañ ci liggéey bi jàppin bu jéggi dayoo waaye ci yeneen daayira yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci dëkk bi yor fi ay métier lu mel ne plombier yi kenn gënu leen a sonn ci liggéey bi nga xam ne Touba ca kanam doon na ko def électricien yi euh, métallique yi euh, menuisier yi ak yeneen association yi ak mbootaay yi ñoom ñëpp takkatoo nañ ànd ak Touba ca kanam eh, jàpp ci liggéey bi nga xam ne doon na ko def ci at mi te ku nekk ca ñoom joxe nga sa bopp waaye yëmut ci loolu tamit kuréel yu yi nekk ci dëkk bi yëpp ak yi nekk ci bitib dëkk bi ak murid yi ak borom alal yi ak borom doole yi nga xam ne dëkk bi mooy leen ñor jàpp nañ ne mooy seenub dëkk ndax bëgg gi ñu bëgg sëriñ bi dañuy bëgg lépp sëriñ bi moo ca feeñ tax na ba ñoom ñëpp ñu takkatoo boole seeni doole génnee seen i alal ko Touba ca kanam loolu bi muy am juróoloon nañu ñaar juróoloon nañu mbégte ndax kanam samp na di di teg ak njub ak lu leer ba nit ñi wóolu ko ñemee ko jox alal kon loolu mbégte lay doon waaye juree loon nañu njàqare tamit ndax kóolute gu tol noonu kuñ ko teg ci sa loxo nga war koo doxal ñoŋal ko bala taxoon ña génn ña ko doon génnee teg ci seen bët kuñ ko teg ci sa loxo da nga tiit waaye nag ñu santaat ci yàlla bu baax a baax sant sëriñ bi ndax defal nañu ci feex ju rëy rëy ñu ngi sant nag bu baax a baax waa Touba ci kanam gi yëpp di beral ak cant soxnay ci kanam yi niñ koy waxee ci jotaay yëpp seenu njàmbaar ci liggéey bi seen Pastef seenu taktoo waaye seenu dëgg déggoo ak seenu dëppoo waaye di rafetlu bu baax a baax tamit seenu njëkkante jëm ci aw yiw ndax njëkkante ci ku ëpp ëpple lu muy dagg ci euh, lu muy lu muy jaay ci dossier Touba ca kanam lu muy dajale ci alal def ko ci Touba ca kanam loolu lu am am solo la ndax àdduna bi moom lépp la nit ñi njëkkante nit ñaa ngi njëkkante ku gën a rafet la nangam ku ëpple nangam ku ëpple nangam loolu yëpp jëm ci àdduna waaye njëkkante ab liggéey bu ñuy liggéeyal sëriñ bi loolu rek moo jara njëkkante te mel na ne soxna yaa ngi ca loolu am am solo la di ñaan yàlla mu wàlliku mu wàll ci ci ñëpp rawatina ndaw ñi rawatina ndaw ñi di sant bu baax a baax tamit waa diaspora bi ndax ku nekk xam na ne tukki dafa metti tukki coono bu rëy rëy la boo ci bëggee boole nag liggéeyu jaayante ak liggéey yam leen fekkoon di liggéey di liggéey sëriñ bi nga xam ne kenn mënu leen ci bàyyi xel gi ni bàyyi xel réew mi ya ci aju ak njaboot gi buñ ci doolee yooyu kon lu lu lu diis a diis la lu méttee métti la waaye du yëg métti di wa ndax mbégteem liggéeyal sëriñ bi noo ngi leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay ci diiru liggéeyu Touba ca kanam di ñaan yàlla mu defal leen tawféex ba kenn ku ne la la yóbbu ca réew ma nga nekk nga mën caa am lu kawe sa ndax it euh, buñ koy seet euh, ci seen pasteef da ngay gis ne. un milliard cinq cent soixante millions yi nga xam ne Touba ca kanam euh, cinq cent soixante quatre millions cinq yi nga xam ne Touba ca kanam dajale na ko ci njaayum rusi ak carte ci at mi loola téeméer boo ca jël ñaar fukki ak ñeent ci diaspora bi la bàyyi ko te ëpp na ko li tax ëpp na ko mooy loola mooy li fa jógee directement waaye la fa jógee indirectement te mooy ko fa nekk yóbbante alal ci waa këram ñu jël xaalis ba foofu daggal ko ci reçu wala ñu verser ko ci compte yi te duñ ko comptabiliser ci li jóge bitim réew loolu lu baree baree bari la waaye ci jaayante yi tamit buñ ci demee 1 milliard 638 millions yi nga xam ne dajale nañ ko ci téeméer boo ci jël fukk ak juróom ya jàpp fukk ak juróom benn yee ci diaspora bi la jógee kon diaspora bi taxawaay bu ama ama am solo te li ma waxoon fee laay waxaat loolu mooy li nga xam ne moo fés waaye li ñëw indirectement mooy euh, lu baree baree bari lay doon te looloo dañ koy comptabiliser ci biir réew mi kon euh, ñoo ngi wéyal cant gi jëmee ko ci mboolem waa kanam jëmee ko ci mboolem waa Touba ca kanam ñoom ñi nga xam ne ñoo tànn waa comité directeur waa comité directeur boobu ñu sant leen bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñoo tànn bureau exécutif te ci biir bureau exécutif bi euh, ñu tànn ca ab dong bu toog di waxtaan ak yéen nii ñu di ko wooye président di turu di sa diis ci liggéeyu Touba ca kanam bi ñu wóolu woon ko joxoon ko confiance mu ànd ak ñi mu àndal ci liggéey bi euh, doon ci nap na bi ñu accompagner leen jàppale leen ba tey jii euh, ñu ñu toog fii di def tënk liggéeyu at kon noo ngi leen di sant ci confiance bi nga xam ne amoon nañ ko ba euh, dénkoon nu ko di sant tamit nag ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaluñ ci liggéey bi ñuy wax waa bureau exécutif ndax euh, sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne moo nekk vice président bi moom lañ ciy jiital teg ci sëñ Mame Thierno Ndiaye mi nekkoon deuxième vice président teg ci Mame Mbaye Sylla le général ak Amadou Alpha Thiam mi nga xam ne moo nekkoon adjoint waaye teg ci sëñ Mafari Ndiaye le trésorier général ak sëñ Béya mi nga xam ne mooy adjoint Euh, sant tamit nag ñi nga xam ne doon nañu ci jàppale ci bureau exécutif bi ku mel ne euh, sëñ Moustapha Amar ku mel ne sëñ Xarim Diouf ak ku mel ne sëñ Mourtala Seck cant yooyu yëpp nag ñu dajale ko comme ni ñu ko waxee woon léegi euh, teg ko ci loxob sëriñ Abibou Serigne Abibou mi nga xam ne jàmbaar dëgg ci liggéeyu Touba ci kanam bi Serigne Abibou mi nga xam ne maanaam kuy yor kóolute ak confiance Touba ca kanam la maanaam kaaraange ak Touba kanam la. ndax eh, jëmm la joo xam ne yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu te wéral ko foo ko dégg foo dégg aw turam wala mbir moo dégg ñu ne ma nga ca wala bokk na ca ña ko tax xel da ciy dal xol sedd ca ndax pasteefam bëgg sëriñ bi ak njubam ak njubam ñëpp mën koo seede akuk dogoom ak eh, ànd ak mbooloo mi fas yéene ànd ak ñoom gunge leen ci liggéeyu sëriñ bi noonu tamit la ñuy sante sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Abibu ni nga xam ne guddeem ak bëccëg ak yëpp jeexal na ko ci liggéeyu Touba ca kanam bii ci di lijjanti waaye nag yàlla defal ko tawféex yi muy nit ku dëggu doon tamit koo xam ne eh, ku yàlla defal mu am wàcc waaye la ci njabootug sëriñ bi ba loolu yombaloon nañu ci lu bare bare bare ci loo xam ne Touba ca kanam mi ngi koy mi ngi koy kii kon ànd gi mu ànd ak sëriñ Abi bu ñu nekk ci bopp liggéey bi loolu tawféexi liggéey bi la ñoo ngi leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di fas yéene takk suñuy digg jamono bu ne ak fu mu mën a féete ci liggéey bi rek fas yéene ànd ak ñoom jiital leen ci ci ci sunu kanam eh, ànd ak ñoom ci liggéey sëriñ bi di dëgmal rek dàkk ngërëmal sëriñ bi eh, cant gi ak ngërëm li eh, du jeex mukk te fàttaliku ñu ñaar ñi nga xam ne sëriñ Muntaxa moo ne ay shahid lañ ñoom ak ñu faatu ci jihaat ñooyam te loolu yëpp delluwaat ci at mi ak yi mbiram te mooy sëñ du Jaxate ak sëriñ Cheikhouna Sylla di ñaan yàlla suñu borom mu fayal nu leen di ñaan yàlla mu dool leen leer dolli leen bégte dolli leen tawféex waaye dollee tawféexal ak bégal seeni njaboot yi nga xam ne wan lañ leen ginnaaw te ñu te yàlla wut yàlla na yàlla wuutal leen ci ñoom ba ñu ba ñu ba ñu fàtte eh, métitu ñàkk seen seen doom yooyu kon eh, ñi ngi jeexale daal ci delloo cant ak yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo ñu dimbali kàtt na ñu fekkeloowaat ñu moo ñu dimbali defal ñu taw tawféex defal ñu ak wér defal ñu ak man defal ñu ak tal def ci suñu xool yi ak bëgg sëriñ bi ñoo ngi ñaan mu dolil ñu ko waaye di sant sëriñ bi moom mi nga xam ne moo ñu dimbali boole ñu ci boppam eh, Euh, nambatal ñu ci liggéeyal jullit ñi ba ñu mën a takktoo àndandoo boole doole kattan yi di ko liggéeyal ci dëkk bi te lépp di delluwaat ci xidma ga ma waxoon te mooy wa axirina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma waaye nag di ñaan yàlla tamit mu dimbali ñu ba lépp luñ ciy def lépp lu ñu ci def mbaandiwu di ko ci wax ak lu mu mën a doon rek ñu sàkkoo ko ngërëmal suñu borom ndax sëriñ bi kat moo ne woon idil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani xaysu qasada wasalaamualeykum wa rahmatullah